ñu xam ñu xam ko te koy ñaanal moom ak wér ak ak yokk ak yàgg fi lool ba li mu yéene lépp mu defal ko def ko tan yàgg ci gannaaw moom it asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam